asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt ndaxam am moos day gàtt waaye tomb la boo xam ne bii yaakaar naa ne waroon nañ ko mën a waxtaane ci bunt yu bare bare bare bare ndax nag mooy suñu bëccëg mooy suñu guddi mooy suñu suba mooy suñu ngoon tomb bii ñuy waxtaane tey Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa def daf cee àdd ad kàddu gu am solo dafa wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala yuzi jaarahu nee na képp koo xam ne kii gëm nga ne yàlla am na gëm nga ne bés penc ma am na danga taxaw ñu indi say jëf jóoral la ko xisaab la ci kaw jëf yooyu nee na doo tooñ sa dëkkandoo ndax nag boo ko xoolee lii nga xam ni moo xew ci suñu réew mi tey jii dañu àgg ñun ba ci banaliser mooy diggante nit ak dëkkandoom daal xàq ji moom nekkatul dara boo ko seetee sax mooy li jaadu ci ci façon jëflante ñun ñëpp suñu dund yi dañ ko empoisonné tooke suñu dund yi tooke nga xam ni euh, dund gu ànd akum riir amul dal dund gu ànd ak fitna dund gu ànd ak tooñ guddi ak bëccëg loolu la ñu nekkee ñun te sax nag li ci gën a garaaw mooy kenn ñemewu la yëkkati sa baaraam di joxoñ sa moroom ndax loolu mu nekkee tey jii di ko def di la fitnaal walla mu lay tànqal walla mu lay yàqal yow it yaa ngi ak sa bés boo xam ne bii mës nga ko caa def walla bokk buñ ca àggee léegi nga def ko boo koy seet da nga naan est-ce que sax jaratina ñu koy wax ndax nit ñi day waxuma la ñàkk gëm li ngay wax waaye àgg nañu ba ci jàpp ne yow loolu ngay wax sax danga leen di tooñ wala danga leen di yàqal ku xool ci nasaraan yi nga xam ni ñooy suñuy royukaay ci genn wet ci genn wet laa wax ci genn wet soo demee ci seen réew ba yi ñi fa nekk xam nañ ko naar yële tamit di suñuy reyukaay ci genn wet mooy ci wàllu diine ji xëy na ñooñu amul néew na fa lu ñuy tuddee àqu dëkkandoo kenn ku ci ne yaa ngi góor góorlu la nga gën a mën ngir sàmmonte ak loolu ñun fii tooñ rek lañu xam xamuñu leneen tooñ rekk subaak ngoon guddi ak bëccëg ndax soo xoolee baat bi may jëkk a tàmbalee toujours moom laay wax bokk bokk na ci li ñu gën a ñaxtu wala li ñu gën a jàmbat ci réew mi mooy baare aw yoon amul nag ku ci mucc ñii def yëfi àddina ngénte takk dëj ñii def yëfi diine gàmmu cant lu mu mën a doon rekk ña nga baare yoon wax takk seeni rajo takk seeni junjung loolu mooy suñu quotidien ñun suñu quotidien àgg na ba ci léegi loolu mooy li jaadu baare mbedd teg fa say chaise lal sa baas takk say rajo ne fanax kooku mooy li jaadu yow mi koy kaas yow yaay wax lu jaaduwul nga gis nit ñëw ci buntu kër ginnaaw këram foofa ginnaaw këram la waaye mi ngi jàkkaarloo buntu kër jàmbur ndax douche léeg-léeg day féeteek ginnaaw këram waaye noonu mu féeteeg ginnaaw këram noonu la féeteeg buntu kër jàmbur mu dikk gas fa am pax vide duusam ca biir loolu mi ngi am ba tey ci yenn yenn gox yi parce que tout simplement service di d'hygiène aussi deful liggéeyam deful liggéeyam soo demee ca marché ba da ngay gis koo xam ni kii day dend ak beneen cantine bërki dem rek sama benn mbokk nga koy jàmbat te ndeysaan fu ne jaar na fa ci raay ak tàpp-tàppal ak neexal ka mu dendal da yokk rajo bi ba mu sës këpp ko ko te amul fenn fu ko jooyee booy dox ci mbedd mi dangay gis nit ki nekk ci biir circulation ralentir otoom walla mu faf teg taxaw freiné di nuyoo wala muy lijjanti leneen yoonam nekkul ci ñi topp ci ginnaawam nga gis nit di tabax plan bi sóoraalewu ci ñi ñaar ñi mu dendal ak ñett ñi mu dendal déedéet ki ci ginnaawam ak ki ko féete ndeyjoor ak càmmooñ yoonam nekku ca nga gis nit ku tabax étage tiim biir kër jàmbur fii ci senegal gii la am nga xam ni plan ba ña ko ko defaral waruñu woon a nangu boobu construction la féete kër jàmbur doo yëkkati ñaari meetar léeg-léeg nga tiim kër jàmbur gis fa loo te gis nga gis nawet jot ñu ne ndox mi day wal dugg ci seen biir kër nga gis koo xam ni kii mbedd mi yëpp lay jël baare teg ay birigam jël suufam ràmbale ca sol ay saaku suuf këpp ca kaw benn oto du fa jaar parce que lan ndox mi lay bañ mu dugg biir këram nga gis koo xam ni kii day xëy suba boyal ay doomam ci vacances yi ñu ngay coupé ci buntu kër jàmbur ña ngay fecc ca buntu kër jàmbur ña ngay sabaru ca buntu kër jàmbur ña ngay plaline ca buntu kër jàmbur yow daal bu fekkee ne sa doom jooyul rek sa yoon lii seet leen ko nag mbokk yi ci biir réew mi bu feet gi dikkee tam xarit tabaski gàmmu nga fëgg sa buntu kër boroom kër euh, dëkkandoo baal ma àq baal naa la baal ma àq baal naa la nit ki pour nga mën ko baalu àq juy baalu danga koy respecté ba pare jox ko cër nawloo ko danga koy respecté jox ko cër nawloo ko waaye loolu amul téeméeri sénégalais yoo gis li may wax am na yéen ci teg seen bët mën ngaa waat ne juróom-ñaar fukki noonu la ñuy dundee kon fan la ñuy jëlee ngërëmu yàlla fan la ñuy jëlee mbaax bànneexu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dem nag ba tàmm lii nga xam ni yow bu fekkee ne bokkuloog ñoom mode de vie ci enfer nga nekk safara te deewaaguloo état bii ñuy wax état bu yonjox yonjox mooy lan état bu échec échec soo échecgee doo ñemee wax say citoyen dara mi ngi mel na boroom kër bu nekk ci biir këram te li ko war ci wàllu dundal solal toppatoo faj defu ko bu dee ku nooy bopp néew doole jooju dafay néewal kàddoom échec bi moo tax état bi di seetaan pecc me tëgg géeg raj-raj jeeg luy xew ci mbedd mi état du ci xool la plus li ci gën a garaaw gouverneur yeeg préfet yeeg chef de quartier yi ñoom la procédure demande d' autorisation di jaar ci seen loxo ba àgg police ñu soog koo signé fan nga mës dégg autorisation baare yoon autorisation tëgg ba deux heures du matin autorisation takk say micro say haut-parleur këpp ko nit loolu ci man réew la war a am réew mu normal waxuma réewum diine réewu nit ñu normal laa wax li kenn xamul lu mu doon amuloo foo ko jooyee amuloo foo ko jooy nga ne nag léegi yow jullit nga nga ne yow gor nga yow di seq ak sa nawle bu tabaski jotee wala tam xarit nga naan baal ma àq yooyu àq fu ñu koy teggi ko xanaa yàlla sax boo jàpp naa ne tant que tuubuloo façon ba nga ko war a tuube te fas ko yéene bàyyi yàlla du la ko jéggal parce que yàlla moom ku maandu la moom ndax maasalewaale baal ma àq yi ci biir déedéet suñu borom moom nag xam na nu muy defee gest compte bi nag bu ko defee nag mbokk yi ñu jéem a soppi doxalin mbedd yi ñuy baare haut yi ñuy këpp nit ñi ndox yi ñuy sotti ci mbedd mi suñu doom yi ñuy boyal ñuy tànqal nit ñi étage yi ñuy tabax di tiim suñu dëkkandoo ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel parce que nag xeeti ñaawteef yooyu ak dellu ginnaaw la ci darajay doomu aadama bu ko defee nag ñu yamale ko fii incha allah mën na am ñu dellu siwaat ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.